naa bu bëggee ci làmb ji barke yow mbal xiyaam la ko baar ku yëg da ngay ñàkk naa ñëw ma xool Colobane dan naa ñëw nu mu tudd euh, fii non non dan daan naa ñëw Maturin waaw Abdoulaye Maturin Diop euh. am na solo tey boo gisee lu mel ni combat bu mel ni le premier août Papa Sow sit nga gis façon entraînement yi looy gis ci Papa Sow Papa Sow gis nañ ci moom moom bu ñu waxalee dëgg te yàlla tax gis nañ ci moom wax dëgg yàlla muy dégager forme bu doy waar. Mm. macha allah liggéey na liggéey bu am solo. waaw waaw boo xoolee Papa Sow nag tàmm nañ ko ci moom nag. entraînement mooy forme ñu ko yàgg a gis. waaw tàmm nañ ci moom ni saa yu bëri mësul summeeku kenn xeeb ko. waaw loolu moom lu ñu xamal Papa Sow ko quoi. combat ak Siteu xalaat nga mu yàgg. combat ak Siteu mën na gaaw mën na yéex. Mm. waaw ñoom ñi war a yéex. waaw li tax mu war a yéex mooy ñoom ñaar ñëpp dañoo war a am taxaw seddu ci combat parce que dafa am ci lu ñu jóge balaa kenn di dem di sa morom war nga am war nga xam sa morom parce que léegi làmb nekkatul luñ lay conseillé ngay ñëw làmb boo ñëwee da xool li ne si biir géew bi li combat bi laaj réalité nga def ko dafa am round d'observation round war a def ñoom ñaar ku nekk xool sa morom mu indi mhm. ñu doog a bëri. gis naa xale bu mel ne bébé bis mi def ko bëri ki démb. waaw ba ñu sax jàpp ne daa daa ragal ki muy bëri. dafa dafa mel ni dafa ragal ku muy parce que dafa ñëw ci géew bi. géew bi laaj arrière mu arrière. ba xam na ne bu arrière waa ji mu mu ëpp mbooloo mu ko mbooloo mi ne yaa fi ne. waaw mu gis boppam mu gis boppam jéem ko humilier. mais bëreewul loolu. mais bu bëri jotee daa bëri. dafa bëri dafa bëri. ku am na solo trop mais bëri mooy affaire bi. mooy affaire bi. kooku koy Matar Mbaye doomu Alaaji Bekaay la wax si lamb ba tey du ma bàyyi de parce que euh, xam nga boo nee parcelle ne Papa Gueye ne Serigne Dame Serigne Dame nag lambay lambay la waaye doomu parcelle la entrepreneur bu mag la nag ma wax leen ko waa Sénégal yéen ñi koy gis maa lay bëggee. waaw maa ngi lay ziar bu baax doom day. Papa Sow moom fu ñu la gis gis fu fu ñu mës gis papa gis la fa. waaw Papa mooy li ma la yàgg wax rek suñu mag la loo xamante ne ay at la ay 19 ans ngay am di ànd ak moom loolu dafa yàgg quoi moo tax fu mu nekk rek dañ fay nekk wax dëgg yàlla loolu yàllaa ko dogal. le premier out yéen ngi ci daa mel ni bu baax de. waaw ñu ngi waaj rek comme d'habitude comme ni ñu daan def rek Paso moom kenn du kenn mës koo gis mu simeeku ñu ne cam farme ba rek macha allah dañu ñaan yàlla rek yàlla defal ñu cet mais ñu ndam bu rëy ndax soxla nañ ko trop sax waa est-ce que kër li ma dégg mu wax Siteu est-ce que loolu du nekk njuumte ci moom kap jàpp na Siteu liggéeyul est-ce que nekkul di ko nax. waaw mais lépp loo gis ci làmb rek ay tegante xel lañ quoi waaye mbër mi ma gis de keneen ku dul Siteu sax faale ko ñeme na la mën na laa daan ci kàttanu yàlla hmm. waaw. am na benn xarit Siteu bu a ma dem bu ñuy wax naar ñaan nee na Papa Sow day sóob rek abias rek a fi des de. waaw ko xalaatam loo Papa Sow moom dafa réguler ci ay entraînement am loo ko mënti wax loo ko wax leneen lu dul dafa gëm entraînement waaw loolu moom bul sonn loolu loo am sax. rek la ngay entraîné nag mbëri. wax nga musique teewa dem ay buuxante. Sall moom naa la fa ngay puus. man damay entraîné de man na affaire léegi mystique bi dafa tardé boo dóorul épaule yi gaañ defar tànk yi. te le premier août faw bu mbëkkante am. waa kër Modou Lo. renforcer waa kër Papa Sow. yal na ko yàlla may ndam. ci kaw Siteu. waaw ndam bu sedd guy. ndax dana yomb Siteu nee na day agressé de. non champion la mais ñun dañuy ñaan suñu camp rek yàlla ñu ndam. parce que parce que papa da koo jar ko lu ngeen seen bop bu baax macha allah. ci dooleeg lépp xool li muy def. na gars yi xuppi seen bët xool léegi. entraînement pire la. macha allah allah.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 ñu nag chaque lundi comme d'habitude nii la dañuy fi gis tey chaque lundi noonu la ñun ñu ngi suñu programme di liggéey di préparer suñu combat. gis nañu keroog nga nga def signature ak ki nga xamante mooy Siteu nga waat ci yàlla da nga koy daan papa fan nga ko teg. waaw loolu après bëri na polémique quoi ndax ñu bëri woonoon ma di ma di ma ci wax quoi mais ñu nag ay jullit lañu ñun gëmuñu ku dul yàlla wóoluñu ku dul yàlla yaakaar yaakaaroon aussi ku dul yàlla bu ñu bu ñu mayee yàlla lañu gëm.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 amul leneen waaw. da gis ne li war a nekk ci moom carrément nekku ci. ah mi ngi liggéey ah mi ngi ay mi ngi mi ngi liggéey ah loolu daal laa ci mën a wax mi ngi ay caution mi ngi liggéey waaw. waaw. ku ci am laaj keneen. papa lan ngay ñu ngi lay xaar boobu jaajëfal sama supporters yëpp dalal seen xel bu baax a baax. di leen xamal ni tey gën a baax macha allah alhamdulilah rabbil alamin di wax rek ni ñu sàq si ñoom ñëpp ñaan.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 Modou ah, Modou dugg ci géew bi Papa Sow ak Siteu ñooy bëre kokal la ah, loolu yaa ko wax nag en tout cas daal maag daal ñuy dugg ci géew bi incha allah le premier waaw. Ah, ah loolu yow it damaa te loxo ja loxo tee koy jeexal waaw. waaw loolu ñaan ñu ko yàlla fi ñu jëm daal yàlla nañ ci yàlla defal ci ndam bon lamb nag espoir moo toll ci lu mel noonu tey Messi demoon na ba yaakaar euh, ñàkk espoir. yàlla defal ko sutura defal ko ndam lu rëy li barki démb mais pourquoi pas Papa Sow bi ma siyaane Messi man loolaa gis sama dama ne li Messi am nii pourquoi pas a nat sama bopp quoi wax dëgg yàlla waaw dama xam euh, yàgg yàgg yàgg dama yàpp ne euh, le premier yàlla dina ma may ndam quoi incha allahu rabbi man loolu laa gëm quoi. la defal papa. ah amul jàngat làmb la rek bëree la rek <laughs> la rek amul jàngat amul jàngat noo bokk ñëpp ay adversaire di bëree ñi dañuy daan ñii ñee daan ñële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 lu ma xalaat lu ma xelal jour boobu loolu laay def incha allah. la nga waxoon ba tey yaa ngi ci yaa ko mën yaa ko dàq bëri te yaa koy moom moo ne. moom moo maa ko dàq bëri maa ko dàq xeex. yéen ko dama lay daan. incha allahu rabbi ba tey ba tey. incha allahu rabbi si kàttanu yàlla incha allah loolu laa gëm loolu laay doxee. ci loo ko teg ah ci subhanallah. incha allah rek laa loolu laa la loolu laa la wax léegi xam nga entraînement moom da nga naan xool mooy entraîné nga ba pare mais moral moo ëpp lépp tey ji euh, yàlla boole ma ak ñoo xamante nii moralement je suis bien waaw ah, je suis bien moralement. combat bi dina ko tuuti combat bi si kàttanu yàlla waaw. Ah. papa gis nañu yàlla yàlla demee noonu rek yàlla na yàlla ubbeeg ndam ndam rëy rëy rëy rëy incha allah loolu lay ñaan yàlla. ah. seen affiche point com. ok perpévu lay daw seen affiche point com ah. waaw kon bu na ko ñëpp euh, gaaw jënd seen affiche point com perpévu lay am dem ah? waaw ñu ngi bëggee ñëpp dernier mot moo mot. waaw dernier mot rek di profité di woo képp koo xamante ni yaa ngi ci appelé poisson. commencé ko tey sunu président écurie muy per ba di ko di woo tamit képp ko xam autorité nga nekk parcelle muy Moussa Sy le maire muy sunu euh, son excellence honorable Amadou Ba ñoom Moustapha Kane Guèye l'original ah Grand Badou Diouf Mbathio ah euh, Go Faye ah ku lim daal di nga juum képp koo xamante ni daal yow yaa ngi ci affaire rek ñu ngi lay woo di woo tamit président ASC yëpp zone 8B zone 8C mooy grand maa ngi woo ñëpp président ASC yi di woo ñaari président zone yëpp leen wax ni daal ñun ñu ngi seen ginnaaw di woo jënd Parcelles Assainies yëpp di leen jaajëfal promoteur bi loo koy wax ak supporter say supporter moo xam supporter u Siteu la nga lancé ci benn message parce que temps am na lu ñu gis te itam liy raam ci ñaag bi la jëm bu fekkee mën nga cee wax waaw ku ne xam ne làmb demoon na ba sooxee ku ne xam ne làmb demoon na ba te ñun ñëpp amuñu lu dul làmb amuñu lu dul làmb na yi ñëw rek gën a civilisé am yar ak teggin ñëw làmb solo lu cher boo solee si da nga bañ sopp la takkal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 naa bu bëggee ci làmb ji barke yow mbal xiyaam la ko baal ku yëg da ngay ñàkk